أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi sunu xutba tey mooy ihzaru alkiithul masquub mbokk yi sunu borom subhaanahu wa taala ak sunu yonent noonuy mooy tandikuloo kees gu bënn alkiis almasquub mooy kees gu bënn wala poos bu bënn wala ndab lu bënn wala kees bu bënn mbokk jullit yi ndax kenn ci ñun bu solee yére mu wóor ko ne yére bi mu sol poos bi dafa bënn ndax dina ci dugal alalam tontu bi mooy déedéet kenn ci ñun mbokk yi su fekkente ne yor na kalbe mu leer ko ne kalbe bi dafa fëkk dafa bënn ndax daf ciy def alalam tontu bi mooy déedéet kenn ci ñun mbokk yi buy tukki ndax dana fekk valise bu bënn mu def ci ay bagage am tontu bi mooy déedéet moo tax ñu ñuy moytandikuloo kees gu bënn alkiis almasquub kees gu bënn mooy lan laa taj ma'u hasanaatikum fi kiisil masquub tajma'uha bisu'uba min jiha summa tasqutu bisuhula min jihatin ukhra da ngay gis benn mbokk boo xam ne wala benn doomu ndey bu góorgóorlu ci jaamu yàlla torop ci lépp loo xam ne yonent santaane na ko ci sunna mu ngi koy def waaye bu ko defee ba pare mbokk yi mu ngi koy dugal ci kees gu bënn tiyaaba yoo xam ne ñu ngi koy dugal ci kees gu bënn loolu lu muy tekk mooy doo fa fekk dara boo demee yowmal qiyaamati ndax fi nga ko doon denc amul sécurité dafa fëq dafa bënn ixwatal imaan tarabaadul ahyaan sax léeg-léeg ñu gis kenn ci jullit yi day jàpp-jàpp bu rafet ci benn bennal njàpp bi wala ñaar wala ñett waaye bu paree njàpp bi mu daal di koy dugal ci kees gu bënn tatasaddaq ala alfuqara bi mablag kabir léeg-léeg nga gis ku jël alal ju bëri ci quantité bu bëree bëri ci alal mu daal di koy saraxe waaye mu dugal ko ci kees gu bënn léeg-léeg ñu gis kenn yaqumu layl day taxaw guddi di naafila wa tasumu nahaar muy woor bëccëg muy topp boroomam lakin tiyaabo yooyu yëpp ci kees gu bënn la ko def dañu laaj ibnu abbas benn jigéen a ngi nii boo xam ne taqumu nahaar tasuumu nahaar wa taqumu layl su bëccëgee day woor guddi day naafila mu ne laa xayra fiha hiya fi nnaar baaxul ma nga safara lu tax ndax tiyaaba yi ci kees gu bënn la ko def ñu ne ko lu tax mu ne kaana tuzi jiiraanaha ndax danaan lor ay dëkkandoom kon tiyaaba yi ci kees gu bënn la ko dugal mbokk yi lan mooy kees gu bënn mooy jullit buy def ay tiyaaba waaye balaa muy tëdd mu yàqu ko wala par seconde lay def tiyaaba par minute lay yàq tiyaaba yi loolu mooy kees gu bënn di def jaamu yàlla yu bari waaye amul assurance waaw waajaa ngi julli mi ngi woor mu ngi topp boroomam lakin qaati u rahim waaye day dog mbokk kiisun masquub kees gu bënn kuy dog mbokk lépp loo def ci kees gu bënn nga ko def tasum wa tasbir alal juu wal atash lakin tasub wa tastum wa talan kiisun masquub waajaa ngi ni di muñ xiif di muñ mar waaye jaamu yàlla bii muy def yépp terewu ko jikkoom rafetul ak a mën a saaga ak a mën a wax wax ju bon ak ak a mën a rëbbaate yonent bi nee na kiisun masquub kees gu bënn la yor tukrimu dayf wa tuhsinu ilayhi lakin baada xurujihi tagtaabu wa tuxriju masaawi kiisun masquub benn waaye ngi ni boo xam ne aka mën a teral gan fu gan riire mu aka yir ko këram dalal ko tatagal ko rafetal ci moom jox ko mu lekk jox ko mu naan jox ko dëkkuwaay waaye cey bu gan nga déparé laxas génn kër ga mu commencé di ko jëw commencé di génn ay sikkam yonent bi nee na kiisun masquub kees gu bënn la waajooju yore mbokk yi li ëpp ci ñun tey bu ñu xoo waxee dëgg xool waxal yàlla danañ gis ne ay kees yu bënn lañu yor jaamu yàlla yi ñuy def yépp ci kees yu bënn yooyu lañ koy dugal waaw ndax koo xam ne condamné bi mu yor waxtu bu nekk mu dugal ci dërëm bés bu nekk mu dugal ci dara waaye condamné bi dafa bënn wala waa ji poosam poosu tubayam wala poosu mbubam bi mu sol waa ji journée bi yépp ñu ngi koy jox xaalis mu ngi dugal ci poos bi waaye poos bi dafa bënn waa jooju bu demee bay tëdd ba simmeeku nekk ne naa sotti xaalis bi ci digg lal bi nag ma konte ko mbokk yi lu mu fay fekk kiisun masquub poos bu bënn bu dugalee loxo bi loxo bi sar dem ba ci tànk bi mu laal gisul dara allahu akbar lan lay fekk loolu lanu yàlla di bañ loo ëllëg wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur gaa yi day waaxu nañ ëllëg yowma alqiyaam dem ci seeni jalu tiyaaba yu ñu yaakaaroon ne yàlla dencal na leen ko ñu fekk mu nekk pënd ak poussière lu tax kiisun masquub ndax ci ay poos yu bënn lañ doon dugal seeni tiyaaba ci ay carton yu bënn ci ay kees yu fëq lañ doon dajale seen tiyaaba mbokki jullit yi ab jullit dafay xër ci diineem xër ci tiyaaba waaye xër ci garde tiyaaba bi ba du yàqu tiyaaba boo def looloo tax ngeen dégg ñu naan salaf suñu wooroon kenn bëgg leen a yóbbu ci lu bon da ngay dégg ñu ne ñun dañuy wattu suñu tiyaaba suñuy tiyaaba yi ñu am dañ koy wattu bëgguñu koo yàq ab jullit day wattu jaamu yàllaam ay jul jullit dafay wattu ay tiyaabaam jaamu yàlla yi ngay def ni nga garder sa alal xoolal tey alal ji moo ñu gën a moo ñu gënal tiyaaba yi ni ñuy garder alal ji allahu akbar li nga gis ponkal mu toog yor jaasi soo ko nee lan la mu ne damay garder fii fii ku fit allahu akbar nga fekk ku taxaw yor arme taxaw du nelaw loolu lañ ko fay fii bu fi kenn jël dara nga gis ku taxaw nit ñoo xam ne dañ leen a jël ñuy wattu sécurité ay caméra surveillance la hawla wala quwwata illa billah pour lan sunu alal bu ko kenn laal waaye sunuy tiyaaba nag sunu yoon nekku ci loolu niñ koy dajalee par minute noonu lañ koy sàgganee di ko pertaat muy yàqu ab julit dafay wattu tiyaabaam ab julit dafay wattu jaamu yàlla lépp luy jaamu yàlla ci yow na nga xër ci wattu ko ba bu ko dara yàq xoola yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax ci bokkaale nee na axfa min dabibi nam la moo gën a sew tànki xorondom da ngay gis ku xëy di jaamu yàlla ba ngoon ba tëdd war a jot mu daal di bokkaale ci bi muy tëdd jaamu yàlla gi yëpp daal di yàqu moo tax mu ne moytu leen bokkaale dafay yàq jaamu yàlla ni sàngara di yàqee lu dagan soo defee benn jaamu yàlla li mu màgg màgg màgg màgg soo ci dugalee benn bokkaale rek jaamu yàlla gi yàqu na te tey looloo fi bari mbokki julit yi ab julit day wattu jaamu yàllaam dafay wattu tiyaabaam julit bi ni mu xëre ci dundam ci tiyaaba yi wattu tiyaaba yi la war a gën a xër julit bi ni mu xëre ci alalam ci tiyaaba yi la war a gën a xër julit bi ni mu xëre ci bakkanam ak bakkanu njabootam ci wattu jaamu yàlla yi xër ci ci loolu moo gën a yey lépp loo def fexeel sa jaamu yàlla bu mu yàqu ndax ëllëg yowmal qiyaam amul lenn lu lay dajaleeg boroom bi luy tax nga mucc ci safara dugg aljanna lu dul tiyaaba yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim ëllëg yowm alqiyama yàlla nee na alal du fa jëriñ doom njaboot du fa jëriñ lan moo fay jëriñ ay tiyaaba rek illa man ata allah lu dul ku dikkee yàlla bi qalbin salim xol baa ngi sat wécc kenn nekku ci ku dul yàlla kooku doongu mooy mucc yowm alqiyama gis nga alal jëriñu fa doom jëriñu fa borom bi tabaraka wa taala wax na ci qur'an ne yawma alqiyam da nga gis koo xam ne yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fi l ardi jami'an thumma yunji yawma alqiyam di nga gis ku gardewul woon keesam googu ki yoroon kees gu bënn allahu akbar mu ne tëll yowm alqiyam yàlla mu ne malaaka yi jàpp leen ko xuzu su keroog waa ji ne yow yàlla tee ngaa jël sama soxna dugal safara nga bàyyi ma yàlla mu ne ko déedéet mu ne yàlla jëlal samay doom nga boole ci xanaa loolu war naa day jabar yi ak doom yi yàlla mu ne déedéet yàlla mu ne waa ji ne ak sama famille xanaa war naa doy bu ma la joxee sama famille yow yàlla ma jox la sama soxna ma jox la sama doom xanaa yow yàlla loolu nag war naa doy yàlla mu ne déedéet mu ne yàlla xuz man fil ardi jamian jëlal ñi nekk ci kaw suuf yépp xanaa loolu war naa doy yàlla mu ne ko déedéet yow rek yow rek tey laa yuadibu adabahu ahad wala yusiqu wasaaqahu ahad te yàlla nee na mbugal mi ma la war a mbugal yow rek yeew bi ñu la war a yeew yow rek amul keneen kenn amul tey ku lay remplacer sa place kon nañu mooy tandiku alkiis almasquub mooy kees goo xam ne dafa bënn jaamu yàlla yoo xam ne amul benn sécurité dañuy naaw par ngelaw da ngay gis ku génn ci jàkka ji julli jumaa ba pare dem ca grand place ba toog commencé jëw allahu akbar commencé wax loo xam ne amu ci benn yaqiin amu ci benn kóolute waaw loolu ab julit na ko mooy tandiku kees gu bënn lay def ay tiyaabaam kees gu bënn ab julit na mooy tandiku yàq jaamu yàllaam ci ay wax ci ay melokaan ci ay jëf yoo xamante ne yépp daf koy perte ndax lan jaamu yàlla yi muy def yépp fan la ko dugal ci kees gu bënn la ko dugal mbokk yi kenn ci ñun sa alal doo ko def foo xamante ne da nga koy perte même bu fekkonte ne ci projet la projet bi di nga def ay études léeg-léeg nga gis koo xam ne jàngul war a financer projet waaye dina ko jaral ñu indil ko ay nit ñu jóge ci ay dëkk yu soree sori ñëw mu dëkkal leen yor leen lan la waa ji di wax pour ay études am baax pour projet am baax pour mbir mii muy def baax waa ji dina ko jaral loolu yépp mu dépassé ci alal judul jeex sa jaamu yàlla nag al imam ibnu alqayim al jawziya radiyallah rahimahullah mu ne doomu aadama mënta mucc ci mbir yi ñu wax pour tiyaabaam yi di bañ a yàqu lu dul mu daal di mucc ci juróomi mbir sa tiyaaba yi pour ñuy bañ a yàqu yow jullit pour sa jaamu yàlla yi di des julli yi sarax yi yépp yu baax woor gi ngay koor naafila bi ngay fanaane naafila jokk mbokk daf yu baax yi dara du ci mun a baax lu dul nga mucc ci juróomi mbir yi bu ci njëkk mooy shirkun yunaqidu tawxid soo muccul ci bokkaale na nga yëg ne kees gu bënn nga yor ndax bokkaale dafay dàq tawxid bokkaale fépp fu mu fekk tawxid kennal yàlla dana ko fa jële ñoom ñaar ay noon lañ munuñoo bokk munuñoo dëkk munuñoo ànd saa yoo gisee borom tawxid du mun a d'accord ci borom shirk loolu moo taxoon ngeen dégg Ibrahim mu ne ay mbokkam ak pappam yéen samay mbokk danaa leen bàyyi danaa leen sori dinaa leen déclarer guerre lu dul ngeen kennal yàlla wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal bagda abadan la wa xata tuminu billahi wahda loolu moo lay won tawxid kon ku bëgg sa kees gi nga yor bañ a bënn sa xeel nga am tawxid na ngeen yëg ne képp koo xam ne kees gi nga yor dafa bënn mooy keesug bokkaale keesug bokkaale ku ko yor tawxid du ci dugg nit munoo weex ñuul munul nekk da ngay nekk mu waxit wala nga nekk mushrik da ngay nekk kuy kennal yàlla wala nga nekk kuy bokkaale saa yoo kennalee yàlla sa kees gi am na sécurité poche bi am na fermeture saa yoo yëgee ne bokkaale kat nga yëgal ne poche bi xotteeku na kees ga fëq na loo def ci say jaamu yàlla yàqu na ñaareel buy tax say tiyaaba du yàqu mooy bidaatun tuxaalifu sunna waaw képp koo xam ne nitu bidaa nga bidaa moo la gënal sunna yonent bi suñ la nee yonent bi alayhi salaatu wasalaam day lii la doon def nga ni ah waaye man lii lañ ma jox allahu akbar ci Sénégal rek ngay fekk ñu ne yonent bi lii la wax nga dégg waa ji ne man lii lañ ma wax Aboubacar Ibnu Abbas doon na wax sahaaba yi dama yaakaar ne yéen alaxira ngeen bëgg a dem asamaan këpp seen kaw yéen ñëpp ngeen dee manaan leen yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar ak Umar nee na xanaa xamuloo buñ nee yàlla nee na kenn waratul wax kenn suñ nee yonent bi nee na amul waxu keneen ku ñu war a indi waaye Sénégal ngay wax nit yonent bi nee na mu ne waaye nag ginnaaw sunna lan moo gën a baax sunna lépp lu doomu aadama def ci jaamu yàlla su ko deful ci sunna yàlla du ko nangu amul assurance imam Malik nee na as sunnatu safina sunna mooy gaal gi ku ci dugg mucc ku ci dugg lab képp koo xam ne li ngay def yëpp bidaa la yëgal ne kees gu bënn nga yor parce que borom bidaa yàlla du nangu jaamu yàlla am te nag jaamu yàlla yépp léegi nit ñi fexe nañ ba mu am bidaa jaamu yàlla yépp laa wax jaamu yàlla boo jël nit ñi def nañ ci bidaa loola tax nga war a ràññee yow borom kees gi yow borom saag bi ràññeel li ngay dugal ci kees gi waaye kees gi fexeel bu nekk kees goo xam ne du kees gu bënn bidaatun tuxaalifu sunna képp koo xam ne da nga yor bidaa mu opposé sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kees gu fëkk nga yor mbokk yi sunna mooy dundal diine ndax sunna mooy aar alquran sunna mooy aar jaamu yàlla bépp jaamu yàlla bu nit di def nga dégg farata yi nit ki di ci sonn dafa fekk kooku di góor góorlu ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la yàlla wax ci alquran فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم yéen ñi nga xam ne da ngeen di wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy tandiku leen yéen ñi wuuteeg yonent bi mooy tandiku leen yonent bi nee na yàlla nee na ku wuuteeg yonent bi dinaa la mbugal ci àdduna alaxira dinaa la yóbbu safara yaa ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla ak yonent bi mbokk yi tey jii fii ñu taxaw ci ajjuma ji ajjuma ju barkeel ji ci ban weer la weeru avril lan mooy sunu aada ci avril fen kisbatul av avril tey journaux yépp wala rajo yépp saa yoo xëyee gis ci ay fen yu ne dang soo waxee ñu ne non garaawul quoi tey 4 avril la te ab jullit dañ ko tere fen allahu akbar ñu tere la fen yahudi ak nasaraan yi kereer la weer woo xam ne bu ñëwee mun ngaa fen dara nekku ci loolu mooy alkiis almasquub fanaanee naa fi la xëy suba daa di woor waaye daa di fen fen bu ngand ñu ne la waaw lii nag nga ni tey avril la loolu mooy alkiis almasbuub mbokk julit yi kon ñaari mbir a ngi nii yoo xam ne képp ku mu nekk ci yow yëgal ne kees gi nga yor dafa bënn bokkaale buy dàq tawxiid bidaa bu opposé sunna képp koo xam ne melokaan yi mu ngi ci yow yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kees gu fëq nga yor poos bu bënn nga yor yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillahi waxda wala na'budu gayra muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ibad allah النقطة الثالثة صهوة تخالف الأمر mbokki jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne say bànneex mooy opposé diina yàlla ji mooy opposé sama santaane man yonent yonent nee na kees gu bënn nga yor wallahi laa yumin wallahi laa yumin ahadakum hatta yakunu hawaahu tabaan li ma jitu bihi yonent bi dafa giñ ne kenn ku nekk ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul man yonent sallallahu alayhi wa sallam nga topp li ma indi nga sànni say bànneexu bakkan tey nañ xool lan moo tax nit ñi mënuñu dund sunna mooy bànneexi bakkan yi waaw koo wax sunna mu ne loolu loolu dafa metti waaw koo wax na ngam mu ne loolu loolu moom dafa metti loolu mën a guma ko waaw bàyyi ma nii ba ci kanam rek suñ la bàyyee noonu ba ci kanam nag li muy tekki mooy li ngay def yépp ci kees gu bënn nga ko dugal amul sécurité kenn ci ñun jaamu yàllaam yàlla du ko jël lu dul mu dëppook sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax lan yonent bi moo doyoon yàlla moom la yàlla yónni loola tax gis ngeen ka Arafat ca naaj bu tàng ba keroog ba muy aj yonent bi alayhi salaatu wasalaam naaj baa ngi tàng ba ñaqam baa ngi sotteeku di walangaan yére bi mu sol dafa ñaqatooy xepp mbalaan bi mu làmboo mbalaan ñi mu làmboo bi ci kaw ak bi ci suuf yonent bi mbalaan mi dafa tooy xep xep xep sahaaba yi daal di koy xool daal di koy yërëm kenn ci ñoom ndeysaan daal di dindi mbalaanam ñu daal di ko koy tiimal ñu takk ci mbalaan bi ñeenti bant ñu tiimale ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma nga jàkkaarloog sahaaba yi naan leen xuzu anni manasikakum xool leen ci man nu ñuy jaamoo yàlla keneen koo xool nu muy jaamoo yàlla da nga perte waaw léeg-léeg nga gis nit ñi julli ba pare nga gis kuy kuy capp kuy capp ci sijaada yi di capp ci bakkanam naan nii di capp waaw léeg-léeg nga gis kuy signé ay signature ci basan yi léeg-léeg nga gis kuy dessiner ay biddéew soo ko nee lii nag mu ne la lii de sama benn góor moo ma ko joxoon sama benn paa sa paa boobu ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam kan moo ëpp barke mbokk yi li yonent bi indi woon ak li gaa yi indi lan moo ëpp barke seydina ali radiyallahu anhu wa ardaahu dafa ne may leen ma ndox gaa yi indil ko ndox ndeysaan bi ko gaa yi indilee ndox mu daal di naan benn daal di teggi naanaan ñaar teggi naanaan ñetti teggi diggante noonu yëpp naan yëpp mu noyyi saabay na ko lii nag mu ne nii la yonent bi doon naanee noonu laa bëgg a naanee ndax ma am tiyaaba sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne keroog ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam di julli sol dàll mu daal di koy simmi bi mu amee ñaari rakka mu yee gestu julli mu gis sahaaba yëpp summi seen dàll mu ne waaw dàll yu rang yi nag lu ko waral sahaaba yi ne ko yaa simmi ñu simmi allahu akbar ñoom daawuñu xaar bu doon fii la tey da nga naan question waaw lu tax mat dalil lu tax nga simmi yow daa deet yaa def ñu def yaa simmi ñu simmi mu ne leen man jibril moo ñëw ci man ne ma sama dàll yi ma sol dafa am sobe moo tax ma daal di koy simmi saawee ne ko ñun daal xamuñu yaa simmi ñu simmi waaw mu ngoog noonu lañ doon royee yonente bi alayhi salaatu wasalaam noonu lañ bëggee woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam abdullah ibnu umar radiallahu anhu wa ardah dugg na ci kaaba gi mu dégg sahaaba yu mag yi naan yonent bi de ba mu ajee aj gu mujj gi ndeysaan ba mu toll ci kaaba gi dafa toog asnada zahrahu ala judranil kaaba fa baka dafa toog ndeysaan simmi mantu bi teg ci suuf daal di wéeru ci kaaba gi moom yonent bi mu daal di jooy sahaaba yi ne ko maa yukkika ya rasulallah yow yonent bi lu la jooyloo mu ne wax kayfa la abki lu tax duma jooy wa haza alhajj hajjatul wada aj bi mooy aj gu mujj loolu mu ngi tàggoo ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam aj gi mooy aj gu mujj waaye tey maa ngi nii bàyyi naa leen tey nii ngeen di mel ñeenti téeméeri at amul ci yéen kuy julli ba pare yëkkati loxoom naan yaa babakaari alay mon juuloowo so silmini e njuulu makko o werta juuɗe makko o wiya ehema baaba kaari a- walla ceerno kaari walla mawɗo kaari hande onon fof kon laaɓɓe so njuuli on ngayni on mbiyat ya rab joom mon noddo ton tawi yéen a ngi ni set wecc amul kenn ci yéen kuy bokkaale amul kuy takk téere amul kuy takk lam amul kuy takk weñ amul kuy takk ndombo amul kuy takk pettaaw te yéen a ngi ni sahaaba yi da ngeen a set wecc ñeenti téeméeri at nii ngeen di mel su ñeenti téeméeri at yi jeexee di ngeen dund juróom benn téeméeri at am na ci ñuy bokkaale am na ñu baax su juróom benn téeméeri at yooyu ju- jeexee tawhid jeex na ci kaw suuf bokkaale rek bokkaale kese tawhid jeex na wala lu nu lu néew ci ay nit ngay gis ñu am tawhid li ci des ñëpp ay bokkaalekat lañ kon junni at la ñu yonent bi garanti woon junni at loolu jeex na bu yàgg waaw tey nag ci bokkaale googu lañ toll ak bañ sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kone sunna mu ne réeréet waaw saxwa tuxaaliful amr bànneexi bakkan la ñu jiital kenn ku nekk li la neex rek mooy sa diine li la neex mbokki jullit yi yàgg na noo wax xool leen juma nu muy feesee par vendredi juma day fees daal tabaski day fees daal korite day fees daal mbokk yi ndax fajar dina fees comme juma ñu julli si woon juma tey ci fajar fan ngeen nekkoon fajar ñaari sàppe dak jàkk boo dem ñaari sàppe ñetti sàppe dimanche moom jàkka ji day grasse matinée imaam sax yenn saa yi day redoubler dal nañu yàlla yërëm ñeenteel mooy xafla tunaaqidu zikr képp koo xam ne dangaa sàggan càggante goo xam ne sa diine amul lenn loo xamante ne di nga ko fàttaliku kees gu bënn nga yor xafla kon ñàkk conscience boo xam ne waa ji du am conscience mukk ci diineem diineem du ci fiir mukk diineem yoonam nekku ci li waa ji doon wax borom xam-xam bi mu ne ko ibnayya ابني إن من الرجال لبهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فتن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر دوم góor gi da doon dénk doom ji ci càggante àdduna ak nit ñi ni ñu mel mu ne ko doom am na ci nit ñi ñoo xam ne xar yeeg béy yi ñoo leen tane wallahi dëgg la am na ci nit ñi ñoo xam ne mbaam sëf yi ñoo leen gën pap doom ji ne ko waa pap loolu nu mun nekkee mu ne tawaajooju ngay gis mbaam gën ko fatinun ku muus la bi kulli musibatin fii di fii maalihi laa ilaha illallah alalam daf ko aar alalam daf ko aar alalam ay garde ñoo koy garde alalam fu am sécurité la ko def bu dee ci biir kër gi sax fu am sécurité foo xam ne kenn du ko gis da ngay nekk am soxna mu nekk ci kër gi xamul foo denc sa alal te alal baa ngi ci biir kër gi nga am doom doom ji mu ngi ci kër gi alal ji xamul foo ko denc xamul fu sa poset nekk xamu ko lu tax fatinun bi kulli musibatin fi maalihi waaye mu ne wa isa usiba bi diinihi lam yashuri bu ñuy rendi diine ji du ko yëg ñun ñëpp noonu lañ mel chaque jour ñu xëy ne waaw yëg ngeen li li li xewat ñu ne ah loolu kañ la yëg ngeen nangam luñ def ci diina ji ñu ne loolu kañ la barki démb rek am na benn xale bu jigéen bu génne téere di xasati yonent bi barki démb waaw fi mu nekk ni moom l'islam mooy cible bi ku jóg rek ci l'islam nga jëm waaw boo waxul ci yonent bi nga wax ci alquran soo waxul ci alquran nga wax sahaaba yi wala nga wax ci sharia tey loolu la ci sharia su ngeen duggee ci internet bi li ma leen di wax nii kenn ku nekk dañ ci tëg bët da ngay gis ay nit yu juddoo Sénégal ñu ne ñoo gën yonent bi waaw ay nit laa wax yu juddoo Sénégal ñu ne la ñoo gën yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu mooy hawan bànneex goo xam ne kenn xamul fu ñu ko teg ci sunuy mbiri bopp ku nekk lu la neex ngay gëm amatul wax dëgg cheikh umar radiallahu anhu aw rahimahullah doon na wax ne ku dee am nga ku la jooy mu ne ba mu des islaam juróomeel mbokk yi hawan yunaqidu tajrid wal ixlaas hawan hawan bànneex afara ayta man ittaxasa ilahahu hawa bànneex goo xam ne moom la nit ñu topp bàyyi ixlaas sellal tey sellal amatul kenn defatul ngir yàlla waaw mbir mi naa ko def ngir yàlla naa ko wax ngir yàlla naa ko joxe ngir yàlla waaw naa ko dox ngir yàlla loolu amatul waaw business bi rek ñaata laa ci am waaw rek soo amul nga yàq waaw ñaata nga ci mën suñ la ko nangulee nga dàq musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam khutba men hannde woni kiis masqub woni kees julɗo walla poos julɗo julɗo o kala ko o rendini e baraji ɗe o rewata allah so tawi o renani yo andu omo nanna baraji makko e keesuji julɗi walla poosuji julɗi walla caawuli julɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi neɗɗo so yiɗi poccitaade e ɗeɗon geɗe yo rew geɗe joyi yo reeno shirk sabu shirk bonna tawhid yo reeno lundaade sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabu su- lundaade sunna bonnat dewe allah ko rewi hen bida yo reno bida saabu bida moƴƴani bida bonna diine bida woni kala ko innira diine to wona e diine kala ko wiya ɗum ɗo sa waɗi a dañat baraji adda e diine nelaɗo jangguinani ko ɗum ɗon woni bida ko ɗum woni bida sen yiɗi andude ko woni bida woni ko wiya sa waɗi daña baraji te allah haalani nelaɗo haalani ɗum ko bida sa yiɗi woppa saabu kala ko ala haalani nelaɗo haalani sa waɗi a dañta hen baraji a tampintu hoorema omar ibnul khatab o yi waaji goto ina wone église ina woya ina woya ina woya omar woyi ɓe mbi omar ko goyata o ko kefeero o wi ala komi jurmiɗomo saabu o tampi kono allah yoɓatamo ko oɗo allah wiyata amilatun nasiba ɓe tampi kono allah yoɓetaɓe allahu akbar omar dafa seen benn waay bu nekk ci benn kanisa bokk fu ñuy moyee yàlla fu ñuy bokkaalee benn église Omar gis labbe bi di jooy ñu ne Omar looy jooy ki yéeféer la Omar ne di may jooy de du loolu mooy dafa sonn waaye du fayeeku dafa sonn te du fayeeku ñu ne ko dalil bi mooy lan mu ne yàlla nee na amilatun naasiba am na ñu sonn ci àdduna yowmal xiyaam dañuy perte yàlla du leen fay loolu bëri na tey de ci Sénégal ñu sonn te duñ fayeeku waaw sonn ci ay tukki sonn ci ay yéegi oto sonn ci dajale alal sonn ci daw sonn sonn sonn ndeke yëpp yowmal xiyaam pënd ak poussière la parce que doo ci am tiyaaba parce que yàlla santu la ko yàlla nu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nu yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokki jullit yi bëri na lu ñuy taxaw fii di sàkkul mbokk jullit yi ay ndimbal waaye loolu dafa jaatu parce que al muslim axul muslim jullit jullit mooy mbokkam dafa am suñu benn mbokk jullit boo xam ne guddeeg bëccëg mu ngi fi ci jumaa ji ak ñun ci darsi yi julli yi yàlla dafa def fa mu doon liggéey moo lakk magasin moo lakk alal ji ay 2 millions et poussière lépp naaw nekk pënd takk ba jeex génnewuñ ci dërëm kooku nag tey jii ndax ñun julli ñi dañ ko war a seetaan ñu bàyyi ko noonu ndax ñun dañoo war a toog rek di ci di ci di ko naqarlu naan eskey eskey eskey déedéet jullit bu sonnee ci ay mbokk jullit la war a ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa gis benn waay gars yi di ko dóor ay kaala ak ay dàll ak ay mbaxne ñii di tëbb suuf di ko xëpp mu ne lu mu def gars yi ne daa naan sàngara yonent bi ne waaye da ngeen koy dimbali kii da ngeen ko war a dimbali waaye bu leen ko def nii da ngeen koy dimbali ñu ne nuñ koy dimbale mu ne ngeen fexe ba mu bàyyi naan ngeen récupérer ko ci seytaan waxuma laag nag bu fekkee kooku lañ war a dimbali waxuma laag nag jullit bu pas-pasam wér mu nekk ci alquran ak sunna di góor-góorlu di liggéey ba defar place am ay noonu yàlla ñëw guddi daal di taal place bi ah kon kooku ay jullit waruñu ko seetaan ñépp ko war a jàppale suñu paree julli mbokk yi kenn ku nekk ci ñun lu mu am mu mun ko fàtte ngir yàlla mu mun ko dimbali mbokk boobu incha allah ñoo ngi lay tàllal loxo suñu borom subhanahu wa taala yal na la yàlla fay wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah yàlla nee na lépp lu ngeen mën a def ci lu baax yowmal qiyaam dinaa leen ko gardeel bu ngeen ñeema jox leen ko yal na nu yàlla fay yiw yal na nu yàlla sàmm yal na nu yàlla taxaw quumu ila salaatikum yarhamukum allah